suñu mouvement bi lu ko sabab bari na parce que ñuy ay jeunes lañ xam nga nekk fii commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkku xam nga di bëgg lancer benn message président Macky Sall xam nga tamit am na la nga xamante ne mu ñu koy defaral mhm. mais bu ko gënoon yokk tamit moom moo gën parce que fii am na ay feebar ya nga xamante ni lu bëree bëri mu ngi fii si suñu commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkku rab xam nga ñu ngi lu ñuy daj fii nii dafa bëri parce que tamit euh, ku jóg pour defal commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkku rab ñu dee la jox suñu loxo mhm. ànd ak yow ñu benn noon rek moom lañ am ku bëgg yàq suñu commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkku rab suñu mouvement bi yàgg nañ ko sos xam nga lépp lu jot yomb mais daa feeñagul woon mais jot na pour mu feeñ plus de mille jeunes ñu ngi suñu gannaaw plus de 1000 jeunes ñu ngi suñu gannaaw te aussi tamit ay borom xam-xam rek ñoom ñoo ñu wër xëy na daa am ñu fës am na ñoo xamante ne bëgguñu fës mais bés bu jotee ñu fës dinañu fës. mais état daa am ñi nga xamante ne teg na leen fi xam nga xëy na ñoo ñu ba ñu ngi def nag mais des na. waaw ñëpp ñëpp dem nañ inscrire parce que fii moom mën naa ne xale amatu fi ñëpp ay mag lañu te aussi tamit am na loo nga xamante ne bëgg nañ ko bëgg nañ ko suñu bopp bëgg nañ ko commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab parce que ñun avancement commune bi rek moom lañ bëgg xam nga jóguñu pour intérêt personnel intérêt ñëpp moom moo ñu tax a jóg. fas yéene nañ si sumb mais candidat xam nga wala bañ nekk candidat loolu xam nga jotagul waaw mais heure bu jotee rek dinañ ko fësal ba ñëpp xam ko. élection locale moom instant bi moom joxaguñu kenn loxo parce que gisaguñu li ñu doy képp ku ñëw nag seet si ñu xam nga nga wax ak ñu ñu tënk ko si ay kaddu yu leer yu leer nañ. pare nañ jox la loxo ànd ak yow liggéey tey yàlla rek a tax te aussi tamit intérêt commune Tivaouane Peulh Niaga si baatu jeunesse bi moom laay wax xam nga fii ay jeunesse yu am ambition ambition ñoom ñoo fi nekk xam nga te aussi tamit mën naa ne état xam nga moom moo ñu war a mën a jàppale mais fii jeunesse commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab xaaruñu dara si état parce que fii ay intellectuels rek ñoom ñoo fi nekk am ñoo am nañu seen i métier mais seen métier doxul dañoo mujj bàyyi seen métier dem di def leneen ak leneen xam nga pour rek xam nga bañ ku leen yàpp xam nga walla daw andi ngir seen sutura xam nga mais jeunesse bi nekk fii moom jeunesse Sénégal moom gàcce ngaa la man moom li may laasé président de la république xam nga mu gën ñoo jàppale rek xam nga xëy na nag mu ngi def mais nag daa am lu des xam nga xëy naa ni moom moom mënul motale lépp mais nañu gën a bàyyi xel parce que fii moom commune Tivaouane Peulh ñàkk benn opposant mosu ko gañe fii Tivaouane Peulh rek am na plus de vingt six bureaux de vote te chaque élection mu xam nga moom mooy battre gars yi cent pour cent xam nga nañu gën a gëstu xam nga fii mu xam ne tamit xam nga ay doomam ñoo fi nekk ay ay rakkam ñoo fi nekk ay papam ñoo fi nekk xam nga lépp daal moom moo ëmb lépp mais nañu gën a jàppale gën ñoo bàyyi xel parce que si région Dakar moom lañu bokk xam nga aussi tamit fii Tivaouane Peulh ñëpp a ko xam fépp foo ne Tivaouane Peulh xam nañ ko kon daal xam nga nañu gën a gëstu xam nga surtout ñun ndaw ñi nag xam nga di doog a suñu bunta <gasps> aduna Tivaouane Peulh ko gagné di nga gagné département de parce que fii plus de trente cinq mille habitants ñu ngi fi. waaw aussi tamit may rek jeunes yi xam nga jeune commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkku rab nañu joxante loxo xam nga ñu ñu liggéey suñu gox parce que ñoo fait la force aussi tamit mbooloo ma mooy doole xam nga bu ñu ñu joxante loxo lépp lu ñu bëgg fii si commune Tivaouane ñàkk ñàkk ko rab naa dinañ jot parce que ay jeunes lañu parce que jeune ñoom ñooy yor réew mais parce que kenn ku ne bu ñu xaaj li ko rek xam nga pënd bi mën na bëri mais dara duñ ko am. xam nga keneen mooy jógewaat ca Allah bu ñëw jiite waat ñu xam nga ñu dëkkaat si fitna parce que affaire am lanteen tamit dafee war a jeex parce que bi ñu dëgmalee élection locale yi boobu léegi maa ngi gis ak ñoo nga xamante ne ñu ngi. taal seen oto di wëndeelu naan ay dañoo bëgg a mag maire ak xam nga nga xamante ne quartier sax ko jiite nit yi defuñu ba ñu lay jo commune bu mel nii xam nga di lancer waat jeunes yi rek xam nga nañuy yeewu parce que ay naxaate moom nee nañ comme ni ñu koy waxee rek saga moom benn yoon nga koy nax xam nga waaw tamit maire bi tamit ñu ngi koy lancer waat appel xam nga nañu gën a gëstu xam nga mu bañ a déglu kenn xam nga mu mu dugg commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkku rab doxantu mu doxantu xool difficulté yi ñuy dund parce que moom boo ko yee dinaan non Tivaouane Peulh am nañ seen maire ñàgg am nañ seen maire non moom il faut mu jóg doxantu xool li fi mën a nekk parce que maire bi wax dëgg na yàlla ñun amuñ dara la nga xamante ne mën nañ ko toppee wala leneen parce que fu ñu toog moom xam nga dañuy waxtaan xam nga ba temps yii dama moo si mujj ah, daa amoon yu ñu arrêté woon fii ay deux heures de matin la ñu fekk foofu ñëw moom kese. ñoo toog xam nga def intervenir woote fu ne joxe xaalisam mu fayal booy booy génn xam nga kon loolu ñun duñu suul jëf ñun ku def ñu wax mais ku ku deful mën a Moussa Kouane bañ ànd ak yow. asalaamaaleykum maa ngi tudd Serigne Ba dëkk commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab maa ngi nuyu suñu président Mamadou Dia moom moo waral lii moo waral ñëw fii pour def conférence de presse lepp mom la parce que mom luñ ñu dugg lu mu dugg ñun ñong ci biir lu mu dugg ñun ñong ñong ci biir ñun suñu taxay déjà moom wax na lepp sa presque ñun dal moom fu mu nek ñun ñoy fofu foofu amaguñu leader nak mais ñooy xol ku ñu doy ñu and ak mom suñu mouvement mom luñ comme luma ma la waxoon rek lu def bari na parce que Momo Dia ñun ñoo dekk parce que lu mu def man xamna ko mo ngi def ay social surtout ma tabaski bi ni jëndoon ay xar muy muy maye du ko def si kaw na suuf la koy la koy def di def ay social lépp lay def nit day ñëw kër gi guddi sax mu indi ordonnance mu yëkkat jox gis nga créé na emploi fii fii biir Tivaouane Peulh ñu ab yaakaar naa ñi ngeen gis mais am ñu bëri ñoo ngi si àll bi ñun ñëpp moom lañu liggéey autorité daal ñoo leen woo surtout ku jàppale ma kii Mamadou Dia ñu jàppale la ku ko jàppale ñun duñu la jàppale parce que moom lañu am président de la république ñoo ngi koy woo Tivaouane Peulh am la xamante ne defal am la xamante rek manqué na fii nañu jàppale mu defar ko amuñu lycée amuñu ay hôpital yu baax instant nit day feebar mu mujjee gaañ. asalaamaaleykum maa leen di ku nekk si turam ak santam commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab di leen jaajëfal di leen xamal ne seeni doom waaw jeunesse Tivaouane Peulh ñu jug tey pour jàkkaarloo yéen def ak yéen face pour révolter wu ànd mouvement defar. Tivaouane Peulh Niaga waaw di leen xamal ne waaw je man maa nekk président organisation bi waaw ànd mouvement dafa Tivaouane Peulh Niaga waaw di lancer appel jeunesse Tivaouane Peulh yëpp xam ne dañoo dëgmal li nga xam ne mooy élection locale waaw te ñun Tivaouane Peulh commune Tivaouane Peulh Niaga ku fi yeewoo rek xam nga ne tey ki ñu àndal muy suñ président ànd mouvement ànd liggéeyal Tivaouane Peulh ku ku fi yeew a xam nga paa yu muy dox si biir dëkk bi nekk xale bu am talent gëm boppam gëm li muy def bëgg waa goxam waaw di lancer appel jeunesse Tivaouane Peulh ñun moom jox nañ ko loxo parce que lekkatu kese naxul ay bëy waaw ku nekk xale nekk si dëkk di def le maximum di dimbalee ay papaam ak yaam ak ay jeunes frères kon koku ku jox loxo yaakar na ne dina dina dina dina defar gox bi ndax gis nañ paayum fi def rawati si ci mbass buñu jugee. parce que réalité ñun dañu ñun ay ndaw lañ mais yag nañ si dëkk bi waaw man 97 ma ngi toan peul ba yalla def waaw lu muy def ñu mag xam réalité dëkk bi dëkk bi am ay faayet yu bari yu am si dëkk bi ñun ñu nek ay jeunes ci si suñu bëtt ba ak mom. mais nag dañoo fipp ndax ndax boo arrière ba sës si miir bi da ngay riposter doo xam foo jëm waaw Tivaouane Peulh nag defar ko yomb na yombul mais dañ cee nekk ak suñuy papa ak suñuy yenn jeune frère depuis boobu ba ñu nekk seen ginnaaw nekk ndaw di ànd ak ñoom di campagne xam am am luñ xam as tuut si politique mais dañoo gis xam ne Tivaouane Peulh amul benn avancement benn yokkute amu ko. parce que ñi fi nekk di liggéey nekk ay volontaire taxaw na dañuy liggéeyal dëkk bi gisuñ fi benn bu ñu fi def lu toll na commune tey ku dugg sax ci commune bi Tivaouane Peulh Niaga dooñu naw parce que fi ñu leen yaakaaroon ñun ak fi ñu leen xaar ñun gisuñ leen fa waaw di wax nag pour lancer message ki xam ne mooy président de la république moom mi nga xam ne ay ñoñom ñoo fi nekk teg leen fi ñu ne dañoo pare pour liggéeyal dëkk bi liggéeyuñ liggéey nañ liggéeyuñu waaw mais xam nañ daal duñ duñ wax lépp mais ñun instant dañoo pare pour defar dëkk bi te ànd ak seeg suñu président bi nga xam ne moom ñëpp xam nañ tey biens yi muy def ak dons yu muy def si dëkk bi déjà recruté na mutuelle de santé bi man sama papa moo ko yor mooy président mutuelle de santé Rufisque bi ñu ngi siy war na dugal tey téeméeru mag yoo xam ne tey seen yaram neexul pour ñoo xam ne carnet saa yu leen dara jotee ñuy dem si hôpital bi ñu consulter leen si gratuite te te te ku la dig añ jox ko bu la nee xaaral reer war nga ko gëm comprendre nga di di xamal na ne jeunesse Tivaouane Peulh fu mu toll nii dañoo war a jug taxaw manko kenn bañatuñoo nax ñu defar suñu dëkk parce que ñun ñooy jeunesse bi ñun ñooy màggi ëllëg am na ñoo xam ne ñu ngi fi mais seen wàllu day wéy pour ñu xamal leen ñu ngi lancé appel bépp jeunesse boo xam ne yaa ngi biir Tivaouane Peulh ñu ngi lay lancé appel nga ñëw boot si mouvement bi. te nit ñi gis nañ tey ndaw bii di doomu dëkk bi di doomu Ousso Dia xam papaam réalité yu mu def si dëkk bi ñu si bëri tey ñu ngi fii si bopp dëkk bi nànk ko tey a cause de papaam lañ ko jaaree tey ba am ko kon tey moom mi nekk xale. ndaw di jaar si ay tracé papam tey bu jógee tey war a defar goxam yaakaar naa ne jeunesse Tivaouane Peulh bi yëpp war a ñëw ànd ak moom nekk si ginnaawam ndax buñ ne buñ ne réew wala dëkk jeunesse moo ko ŋànk kon bu jeunesse bi yëpp ñëwee ànd si ginnaawam yaakaar naa ne lu mu sumb yéene ko dëkk bi lu mel ni commune Tivaouane Peulh ñàgg ñàkk rek suñ borom dina ko si jàppale mu àggale ko si jàmm ak salaam eh, am na tamit ay problème ay faat yu am si dëkk bi lu si mel nii tey Tivaouane Peulh toll na nekk na dëkk boo xam ne waaw ñëpp a xam nañ màgg bu mu màgg ak gaawaay bu mu gaaw dëkk la boo xam ne tey benn benn duggukaay moo fi am benn génnkaay fi am te du yoon te lu war bàyyi xel la dëkk buy màgg di màggee ginnaaw tey warul am tey da ngay wàcc tey tey da guddee soo duggee si entre Tivaouane Peulh Apix da ngay gis client ay wàcc di dox ndax problème dëkk bu xat. benn tali la tali yi dañuy ñew taxaw maire yi jël seeni table kaw tali bi tay fas yi ñew taxaw ci kaw tali bi auto yi war a ambut jàll embouteillage bi nit yi ñoy wacc di dox te ñepp xam nañ Tivaouane Peulh reey bum ak insécurité bu fi nek surtout suñu yaay ño fi yeewoo di xey 5 h du matin di dem fi ba marché poisson di di dani doli pour am luñu indil njabot gi mais dañuy genn seen bundu kër yi ñu leen di kar di nangu seen alal di jël seni xaalis di leen agresser té lolu du dëgg du yoon té dëkk bi am ay njiit yu fi nek wara taxaw si lolu mais leur intérêt personnel mo leen ñor té yaakaar naa loolu defar ab gox tay yaakaar na bo nekké jeune nek don dëkk doon doomu dëkk bi talal sa loxo na tay buñ la jiitalee nga defar tay tay commune Tivaouane Peulh Niaga ba nit ñi la war nga def nit nak mënul matale lepp mais war nga def la maximum bañu ñu kat ki kat même bu munul amee na lu mu def mais nag dañoo jub si loo xam ne kenn nag mun ñoo corrompre nekkuñ ay jeunesse wala nekkuñ mouvement boo xam ne da ngay ñëw pour corrompre ñu ñun lenn rek la ñu ñor ku liggéey Tivaouane Peulh mu jëm kanam ba ku fi dugg naw ñu loolu rek ñu ñor mais nag cin bu neree neex bu bëggee xeej yàlla def na suñ njiit bi di mu Mamadou Dia président ànd mouvement defar gox Tivaouane Peulh ñàkk ñàkk rob wane na fi loo xam ne dal na suñ xel te ñun jox nañ ko loxo képp nag kum ne jox na ko loxo ñun ñu si ginnaawam moom suñ baat moom lañ ko jox te benn la moom moo ko yor waaw mu nekk ndaw bu bu bu bu jàmbaar te ñu ngi koy jaajëfal lu muy def si dëkk bi kilifa yeeg ñi pa suñ papa yi suñu yaay jeunesse bi ñëpp a ngi siy teg seen bët di ko waxtaanee tey ku fi organiser dara ñeme tey dem si maa sàmb wala maa demba te jaaroo si moom waaw si moom ngay jaar. wax ko sa soxla mu def ko te yàlla tax te séntuwu si lenn amul lenn su benn pouvoir bu mu nekk nag waaw def guerrier ak volontaire am moo ko may ba fu mu yegg fii kon nag maa ngi lancé appel Tivaouane ñu gëstu ko bàyyi ko xel surtout ma rawatina jeunesse bi man jeunesse bee tax may wax ñu jàppale ko nekk si ginnaaw ñu defar suñu dëkk